Rewmi 24 TV bisimila dal leen ak jàmm ci xibaar mercredi 15 novembre président Macky Sall mu mel na rek demam ngi ci Kaolack mujjee naa metti lool ci moom rek di président Macky mu mujjee rek weex xatt ci moom kon daal mel na ne Kowoon foofee ca Kaolack daal daj na fa rek lu mburu dajul ci ab loole rek kon dañ koy def saa ne rek ci Sénégal fépp fu dem rek dañu koy sonkorise mu mel na rek mooy ñu ko jàmm benn yoon li ñu koy wax rek mooy libéré Sonko libéré Sonko kon tey jii rek loolu moo xew fële ca Kaolack ci président Macky Sall gi nga xamante ne rek mi ngi rek demoon foofee ngir rek def ab visite kon loolee moo ko fekk dëkk bu ñuy wax Kawoon kon boog mi ngoo ko jamono yi askan bi yëpp li ñuy wax rek mooy libéré Sonko libéré Sonko ba président la république fu mu rek loolu lañ koy wax waaye it ku fare ak moom rek loolee lañ lay wax libéré Sonko libéré Sonko kon jamono yi dafa mel ne rek loolee rek nanguñ ko bàyyi tànk libéré wuñ Ousmane Sonko